asalaamualeykum wa rahmatullah man la seen doom seen ab xarit Abdoulaye Souare maa ñëwaat fii nii tey ah, si leen programme bu ees fii di Sahel Entertainment Network TV programme yi ñu ngi ko tuddee waxtaani mbedd bi nag tey moom mu am fi ay groupe yi ndaw yi nga xam ne ndaw yu ndaw yu farlu lañ si li ñoo def yamoon so ñoom la am tey fii nii tey si lankasta fii ñu ko ooyee si Bayadof suma suma mbokki ay ndaw ñi nga xam ne nag dañ farlu torop si li ñoo def am tay ma am ak ñom waxtaan yu yo waxtaan bu yaato yaato yaato yaato waaw man doore ko ci suma ah, bay fall bi rek ñu ko ooyee Mams Mams ma bay la nga nuyu ak mbol ñu la assalamu alaykum wa rahmatullah askan wi ñu ngi leen di nuyu waaw di leen eh, gërëm di leen santa di wax alhamdulilahi rabbil alamin di santa suñu ñaari wajuri di sant yàlla sant yon yàlla Muhammad di wax ne am nañ kontaan trop si li ngeen ñëw fii nii tey fekk suñu fi tey pour waxtaan ñun ñu doon ay ndaw ñu tamit ak askan wi ak suñu moroomi ndaw yi ak àdduna bi di gërëm ci loolu leen nyu mooy li ngeen ñëw fekk suñu fi tey. jërëjëf maam sa jërëjëf sa euh, euh, kontaan nañ trop wa mam stay so gisee tey ñu ñëw fi tey pour waxtaan ak because dañ dee nyu ne ñu ne ndaw yi ñoom farluwuñ soo man wax boobu noonu daf ma dee nahari da nga sax wax boobu noonu daf ma dee nahari trop so ma gis na ne ndaw yi ñu njaflax ñoo fi si gambia bi not in banjul general but si gambia bi te yow lan nga bi nga déggee wax boobu noonu lan si yan yan yan si lan maanaam daal si nak nga koo naxarloo daal maanaam daal wax boobu noonu daal wax boobu noonu su ma ko déggee ah, te ma doon daw fu mu jaar dina am man naka laa ko jàngaatee wala naka laa ko dundaatee waaw parce que li si ëpp yëpp lañ jaar mooy ñun fii ndaw yi dañoo tayal te boo ko xoolee nga gëstuwaat ko si biir ndaw yi seen boppa am na si yu bëree bëri tey gaa ngi si jóg tey di yëngatu tey pour dimbale seen boppa tey waaye leen a xëj na moom moo amut mooy ku leen fekk si si ñoom ca lañ nekk loolu loolu loolu la gaa yi gisut ñeneen ñi nekk seen boppa tamit doon tam ay ndaw kam comme su ma ay morom fii ci réew mi ñoom tamit duñ ñu xaar dara lu ñu gis yenn bunte yi pour ñëw ñu mun a jog ñoom tam grave ñoom tam si opportunités yi waaye yooyu leen gisul kenn ku leen ko créétal loolu moo tax nag doo mun a gis ñoom dara lu tayal moo waral fu ñuy gis ñuy toog ni saa yu nekk foo dem Banjul ba koy na ndaw yi ñu ngi dajaloo comme lu ñu ooyee fu amul foo du dem gox boo du dem te doo fa gis fu Lana ko waral lolou du laziness wala leneen de lack of opportunities mom moko waral wax ndawi tay man gis na suma ay mborom ndaw comme ku melni man am ci si foo man fala gis ni tay man suma mbir tay fofu la nek teh. ngi jog tay di ko tay diko di dox waye gis na ne mbir momu tay dima ci yaga jog tay diko di diko dox be fuma ma ni tay be ben yakar ko ci am parce que lana ko waral ay yenen yenen mbir yo xam mo ci la hasu te lolou non ah, mbir yo la amut solo parce que li am solo moy ñun dañ wara a ne Gambia mom moo ñu moo Gambia mo ñu wara ñoo réew mi te dëkk bo dem tey nga gis tey mu am tey yokkute tay. am development. dañu wax development ndaw yi seen bopa ñom ñoo nekk ci kanam parce que ñom ñoo amé doole réew mi ñom ñoy élégi réew mi kon amna solo trop pour ñu tagat ndaw yi ak xol li nga xam tamit war nañ leen see mën ñu fekk ci leen parce que ndaw yi ñoy réew mi réew mi moy ndaw ñi jërëjëf jërëjëf maam sa sa wa kaddu boobu na am na solo lool xanaa ma toonaat si rek suma beneen bu waji muy Omar am so nuyu naa la waaw asalaamaaleykum fay naa la sëñ bi yaa ba Abdoulaye. waaw jërëjëf waay sant yàlla waa ah. waaw OMS comme tey ñu ngi ko déggee rek comme ni ko maam su waxee because man wax bi dafa ma dee naxari amoon stan so loolu tax tey ñu créer dat plateforme bi nga xam ne waxtaani mbeeda bi nga xam ne ku si nekk di nga si wax sa xalaat soo yow tey maanaam daal wax boobu noonu nga xam ne ndaw yi dañ bañ a jóg dem liggéey ñu ngi ko yaakaare si seen broda si seen si say nekk ak Europe soo amoon stan soo man loolu daf ma dee naxari trop man man dama dee wax ne ne ndaw yi xam nga ba ñu ñëw liggéey dañ amut opportunité bi xam nga dañ amut opportunité bi mun a soo seen boppa soo naka nga gisee comme wax boobu noonu maanaam daal si lan nga foog ne lan lañ war a jàppale ndaw yi pour ñu gën a mun a dem dem ñaxtu dem daan seen doole daal lan nga foog daal. waaw alhamdulilah sant yàlla waa daal comme quoi daal xam nga yàlla defal na ñu xel tamit xam nga ñuy xelaat xam nga war nañoo gën a mun a jàppalante xam waaw. institut yaa ngi fi xam nga war a ubbi institut xam nga place yi métier yoo xam ne do yi dañoo mun a jàngal métier xam nga wala ñu am métier ñu mu leen a jàppale xam nga beneen wéy boo xam ne ni dañoo mun a am machine ak bagage yoo xam ne comme man suma maas yi xam nga teeloo lañ xam mm-hmm. waaw Wow. Mm-hmm. So we need machine, we need instrument, so many things, you know. mm lack of money, so mm-hmm. mm-hmm. should be another way, you know. they could have helped you moom mm-hmm. mm-hmm. waaw yow yow maanaam daal comme maanaam ñawkat nga because man bu ma la xamee ba si ñaw nga musa nekka wa maa ngi mën a nga ma ñawal njaxa si Baye yaa ma understand du ñëw sa waaw yeneen a yeneen you know mm-hmm. DJ la dama dee xam nga bëgguma toog daal you know comme like di dégg wax yooyu noonu so xam nga bugga naa suma yeneen morom yi tamit xam nga am métier xam nga mm-hmm. waaw bu dee ne jàng bi fële école bi demul xam nga nga ut beneen métier xam nga mm-hmm. waaw góorgóorlu si xam nga waaw waaye métier yooyu noonu tamit léegoo léegi daf dee xaat xam nga soo ñoom ñoo war a nguur gi tamit xam nga mm-hmm. ubbi yeneen place yoo xam ne danga faa mun a dem place yaatu yu rëy xam nga pour mun a xam nga pour gars yi mun a jàng daal waaw loolu moo des xam nga waaw jërëjëf Omzo mais maa ngi amaat tamit suma beneen beneen da bi nga xam ne moom tam mu ngi si fa si sideline si mun naa ko waxee ko si sideline si la nekk so man laaj ko turam bro tur gi. man maa ngi tudd Abdou Hadir. Abdou Hadir Ba. Abdou Hadir Ba waaw otherwise school ah. waaw comme Abdou Khari comme ni ko comme ni nga ko déggee comme ni ko sa mbokk yi suñ mbokki Baye Fall yi mun naa wax ne suñ mbokki Baye bu ko ñun ñëpp ay Baye Fall la yam understand so comme ni nga ko déggee ni ko gars waxee so lan nga foog ne yow lan nga foog ne lan moo waral moo waral toogaay bi nii si ndaw yi lan nga foog ne lan moo waral toogaay bi daal après lan lañ si war a gën a mun a def pour toogaay bi gën a wàññeeku daal lan nga foog si lan lañ war a gën a mun a jàppa daal waaw waaw li waral toogaay mooy lan rek ñàkk a ndimbal daal xam nga ñàkk ni bal comme li Mamadi ak suma bro wax tam euh, Omar rek waaw ñàkk ni bal because ba ñu ñëw liggéey waaw tey di nga ewu ñoo toog fii keneen ak keneen a nga romb naa kii amul ñàkk amul comme amul éem amul plan amul nii li nga li nga li am nga ko sa éenee am nga ko pare daal xam nga waaw cos neexu si xol tamit nga ewu effide di ñëw di toog fii di ewu di toog fii yaa ngi nga yaa gis ne yow ñu la ñu la war a dimbale yaa ngi naa rombaat effide duñu la dimbale nii leen laa xoole waaw di yaakaar nga dem di wax laaj leen dara te ñun tam mënuñ loolu ay gorte mënuñ dem te gis ni Roma ñu ñaan leen laaj dara doomu aadama ba si suñ famille yi sax duñ leen ñaan dara ne fii ñun lu ñu yàlla wërsëgal ñu sante ko yàlla xam nga waaw so ni leen ni mal soxla is too much waaye ñoom ñoom seen bopp xam ne li ñu war a def waaye duñ ko def ni leen ñoo xoolee waaw di fi de ñu ne ñoo rombal du gën a di ñu ñu ŋaamu di ñu ŋaamu di ñu su booxuma su booxuma waaye loolu waaye def sa boppa bi àdduna la waaw dañ ne pour dimbale ñu dimbalante ñu leen neen fii ñu fi nekk bëri ñu jàppale ñu si lu bëree bëree bëree bëree bëri xam nga waaw te ñëpp bëgg nañ bala a ñu dimbale si tëral seen parents ñu ko ñu moo xam ne ñu am ñoo xam si ñoom lañ ko dépendre si ñoom lañ ko yaakaare te ñu ngi nekk ay xale help ñu waaw mala situation bi ñu mën a delluwaat back to position xam nga waxee ni waaw Abdou Harim jërëjëf wax dëgg jëf sa kaddu dégg nañ ko trop rafetlu nañ ko trop ma toonaat si suma mag ji muy muy Mams moom moom moom moom moom dëgg dëgg moom Baye Fall Mams su ma bàyyi xel si sa biir wax yaa ngi wax ne yow am na métier yi nga xam ne yu bëri yoo xam ne at least yow fi nga nekk tey muy maanaam daal muy port bi gis nañ ne yow foofu man man foofu laa la xamee te yow gis naa ne yow always yaa ngi yaa ngi dansa dole daan sa manam dam noonu maanaam gis nañ ne amna ay janku wante lu bari yo xamne mu fa xappun because man de lo mbir ne amna ño xamne xam ne wa bañu man dama de wax leena ne port bi bir bañu la neka port bi bir bañu la neka te suñu waxuma ne ben Gambien warut a liggéey port waaye dama ne su dey 100 75 of the day neka a bañu li yan go ñun port bi lañ am soo nag nga lan ngay am pour mun a wax ñi nga xam ne ñoo fa nekk bala ñi nga xam ne ñu ngi faa liggéey nga xam ne they are casual they are not staff for how many soo lan nga am pour wax pour wax ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñi xam ne ñoo nekk si top bi ku mel ni seen xam nga ñuy tudd a tur sax ñan am pour wax ñooñu noonu daal maanaam. waaw man kay lu ma am pour ñaax leen rek mooy lépp loo xam ne rek ah, si li ñu war a jàppale ñoom ñi nga xam ne ñoom la yàlla féetale foofu tey ñu nekk tey ci kaw. waaw su nit ñi foofu lépp lu ñu mën a jàppale nit ñi moo xam ndaw ñi fa nekk la wala mboolem ko xam ne mi ngi nekk on a casual si boppam casual dañ ñu waxoon ne Porsche foofu la day recruter staff sami uh, uh, uh, seen xëccëm foofu loolu ñu wax ne casual fa leen dee jëlee always ñoom suñu bëggee yokk staff fa leen di jëlee seen nit ñi waaye ñun ku mel ni man for exemple yàgg naa nekk casual for more than years mun naa waaye ba léegi staffuñu ma ma demee ma demee foofu all the dixième dig moom la dee nekka waaw ñu ngi fa naka turaat ñu ngi seen biir fàttewuñ leen ñu ngi yëpp ñu leen di bàyyi xel su opportunité bi ñëwee rek nañ leen ko jox waaye si biir loolu noonu yëpp ñu la waxee da ngay gëstuwaat nga dem nga toog gis biti ñu indi leen ñu leen staff leen yow yaa nekk foofu noonu on a casual for so many years port bi sax fa laa mujjee dëgg la waaw xëy na tey dafa dem tey ba jël ma tey ba ñu bëri tey foog na sax waaw port bi rek man fa mus di nekk waaye man ni maa gis ni man tamit borom métier la painting and decoration, ka painting sax dama ko dee def ma jeexalee school man loolu laa so manam dal comme sa bir wax kon yow dafa mel ni nekku na ci bir port bi rek nga ah, port bi rek nga def ya mën so yo dafa mel ni mana daal sa life yeb si li nga dooree moy ne carpentine nga def waaw si ñaata at ñaata at ya nga def carpentine def naa carpentine ci lu dem ba si at ang ci si garage ci ah, Baba Saho Tubaakorut boobu liggey na fa Baba Saho ñu bari xam nañ ko dañ ko garage si Matar faldam, dam nekko na fa fu dem si bala tamit fu tamit liggey na fa tamit ah, liggéey na fa bu tam beneen ñaari at mm. mu mel ni comme man lu jëm si carpentry def naa fa eight years si mbir moomu noonu waaye tey pour ma dooleel tey su ma ba tey si waala boobu pour taxawal su ma ba sa tey mm-hmm. noonu loolu la gars yi lu mel noonu comme ndaw mel ni comme man am suma métier tey bu tey ci ku ma tey fekk si ma tey pour ma mën a taxawal su ma ko ma mën a dimbale ñeneen comme man tam am am naa dama noon kontaan trop pour ma war a nekk si mbir dinaa si yëngatu ba ñeneen ne mhm. ñeneen tamit tey maanaam daal ma ñëwaat si suma Baye Fall bi Omar Omar Omar Omar Omar euh, comme ni digga ngeen ni ko saay waxee muy Mams muy suñu brodam ni mu ko waxee bu ko affaire si mun naa ne aar bi dafa yaatu comme ni ko gars yi dawee aar bi dafa yaatu yaa ma understand because yow yan lan nga foog ne léegi yow as yow as nekku ne ñëw rek nga dee def yaa ma understand ndax ñëw rek nga nekk di def. liggéey yi bëri na comme ni ma la ko waxee woon you know yeah kii lu wax rek xam waaw loolu laay répétal li dafa mel ni comme yow suma maanaam daal si sa biir wam DJ nga kan nga soo léegi foo toll si affaire DJ waaw dama dee xam nga dama dee pile lu nekk any kind of music <laughs> yow man ah, waaw léegi maanaam daal Omar Ceesay yow comme lan nga foog ne lan nga la lan la nguur gi war a def fu nekk nii pour mën a jàppale ndaw yi nga xam ne ñoom ñu ngi jóg buy jóg buy daan seen doole si yan aspect nga foog ne loolu la nguur si war a nguur bi war a dimbale ndaw yi nga xam ne kuy wàññi wàññi toogaay bi si biir réew mi daal bu ko dañ ne ndaw mooy nekk magi ëllëg youths are the future leaders of tomorrow so loolu lañ dee wax so lan nga foog ne yan yan yan job creator so la gaay war a def pour mën a ndaw yi mën a gis seen bopp si lu nekk daal maanaam waaw waaw façon fànn bu nekk. façon waaw léegi wax ñu benn wax ñu comme. loo ñu mën a wax daal. comme like you know su suma métier bi atele euh, atele place yu fi nekk pour gars yi war a ubbi atele yu mag yu ponkal bëri na def fa ay machine waaw mm-hmm. ku nekk su dee gën yow amuloo foo amuloo xaalis booy saate nga dem liggéey foofu gars di la fay. Mm-hmm. gars di di jël yooyu di ko jaay wala am am nga lu ma laa expliqué na nii. Mm-hmm. waaw so su ko defee toog bi du bëri daal xam nga si dee ne am nga atelier booy joo bi di am jom nag waaw waaye yeneen atele yi fori na yaa moom na foofu dis atelier ubbi woon naa fi atele fii suma koñ fii maa ngi ñëwal mairie waaye accident daf day am so it run down so I need a help again you know inshallah you know and not only me but enough of us man you many of us you know yeah yàlla nañu yàlla jàppale wécci xel yi ak xol yi parce que tamit xam nga ñu nekk si kaw tamit xam nga. seen xool dafa war a set pour xam nga. Mhm. dafa war a yaatu daal loolu moo gën a am solo si nit xol bi xam nga. ku yeloo place bi nga jokk ko bul xool kii mbookam la wala kële la xam waaw mais loolu daf ñu disturb daal maa ngi jégalu nag. waaw ma toonaat si Abdou Hadim te yow tey tey suñ la boo waroon a laaj te yow Abdou Hadim lan nga nekk di def waaw. dara right now ni moom maa ngi de rek ma ewoo suba fii laa ñëw laax ba ngoon ni ma dem ba kër sanguwaat ni change ma yére at same fii laa ñëwaat same place ñëwaat fii ba one o'clock yooyu noonu ma demaat tëriwaat same thing noonu laay loolu every day the same every day every day so yeneen nag nekk moom yeneen moom nekk loolu nag pin naxari na lool si xool naxari ba ñu ñëw def dara de amul lu ñëw def rek waaw ba ñu ñëw def dara amuñu def parce ki tamit sooy liggéey nga liggéey si li la a sori

ma beneen moom a am taxawaay boo xam ne war a daal moom loolu moom soo ko waxutee si Abdou Hadi man xam naa loolu a stan soo waaye comme tey maanaam ne comme ni nga ko gisee nekkuloo si dara soo lan nga foog ne lan lañ la war a mën a jàppale o lan la la nguur gi lan la nguur gi mën a jàppale sa morom ku mel ni yow maanaam daal si yan faana nga foog ne loolu la la nguur gi war mun a jàppale wala o keneen koo xam ne mu ngi seetaan programme si lan nga foog ne lan la la mën a jàppale yow mi nga xam ne yaay yaay Abdou Hadim yow waaw waaw waaw bëri na ibil ñu na bëri na daal ibil ñu waaw. na moom waaye si ban ban faana nga foog ne yow si loolu lañu la war a jàppale wala wala jàppale sa beneen moroom boo xam ne ku mel ni yow maanaam daal. waaw waaw man man li ma man li ma fas woon a def man man comme man li ma bëggoon a def dem jàng ji métier waaw ñu ibil euh, jàngikaay métier yi daal waaw yaatal ko si dëkk bi. waaw ba sakkan fi nga xam ne benn kenn du toogati soo déggee ne da ngaa toog dem dugal la ñu dem jàng ji métier bëri neen waaw ñu ñi nga xam ne amuñu ñi nga xam ne amuñu kii wàccuñu school jeexaluñu ji métier waaw ku mu ta jàng métier nga delloo back to school waaw su moo beta nga xool nga nga seet daal fi nga xam ne yow sa fa jubloo dina la mën a njëriñee ëllëg waaw kenn bu ko jublu xam ne di ko njëriñee ëllëg waaw ñëpp bëgg nañoo jublu fu ñu leen fu leen naa njëriñee ëllëg su ma morom bi yëpp du ma si man rek waaw so yaatal place yi jàngekaay métier yi kon li ma doon wax ne man su yàlla dafa feebar bi dem ba dal ba lépp dal damaa dem jàngi métier dem jërite ay jàngi engineering wala IT waaw is moo better man loolu laa am fas yéene ne ma loolu su ma ko jàngee man loolu xëy a in future dina ma jàppale ji waaw dana bu demee ba am si a jàppale ji si kanam ak kanam waaw because dara doorewul dara doorewul ten wala hundred lu nekk benn la doore waaw soo naka naka rek loolu laa man loolu laa fasoo woon daal ñu yokkal place yi métier yi waaw ibi a ibi moo place yi nga xam ne dina mën a jàng yombal ko ba nga xam ne kenn du dund toog waaw maanaam daal si sa biir wax daal dafa mel ni yow danga mel ni ku bugg a waa dem jàngi ji jàngi ji so loon nga bëgg a comme like because gis nañ fi ay GTT ay ñu ngi fi ay ñoom président award scheme ñu ngi fi yaamoon sax foofu noonu yëpp jàngee kaay métier la maanaam daal yu sa biir wax da nga mel ni da nga bëgg a puy dem jàngi ji jàngi ji métier bi mun a njëriñ sa boppa foo naa ne foo naa ne xalaat xalaat boo bu rafet la soo mboolem koo xam ne yaa ngi seetaan programme bi comme ni nga ko comme ni ko Abdou Hadim waxee tamit mboolem koo xam ne yaa ngi seetaan programme te dem bugga ngaa jànga métier loolu mooy objectif bi soo ma delluwaati suma Baye Fall bi rek ñoom maams because dañ dee am na benn benn benn organisation bi fi nekkoon ñu ko ooyee yeps understand so man dama dee wax ne ok let's say am na lu fi gars yi def maanaam am na ñoo xam ne dañ ma dee wax ne ñu ne ma defuñ ko dara so naka nga gisee woot boobu noonu maanaam daal. Ah, waaye su fekkee ne ah, comme la yëpp ah, mooy youth enterprise promotion. Mm-hmm. waaw boobu noonu nga xam ne moom lañ taxawal mbootaay boobu noonu souvent pour jàppale ndaw ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a yëngu taxawal seen boppa moo xam ñu amoon métier lañ bëgg a taxawal seen boppa pour am seen own compagnie boppa mm-hmm. pour mun a mun ñeneen na ñeneen wala ñu nekk ndaw ñoo xam ne na dañ gis benn bunta boo xam ne bëggoon nañ ko leen xaalis pour ñu investir pour nekk ay entrepreneur waaw wan gis naa ne dëgg la yaakaar nañoo dëgg yëpp si dëkk bi waaw boor bu nekk ñu ngi dëgg seen biir seen yëngatu waaye man soo ko bàyyatee xel daal si ndaw ñi pour nga xool yëpp impact bu mu def si ñoom daf day jafe trop pour nga gis ko waay waay waay waay maam su waay gaa leen jawoon ne yëpp am na impact bu gaa yi def si biir ndaw yi loolu moom mun naa am moom waaw loolu moom kenn du ko mun a daxa waaye ñun dañ ñun suñu wàllu boppam ñun ñun luñ gis ñun loolu lañ mun a wax mun man mënu ma laa wan kenn si fii koo xam ne man yëpp yëpp si boobam def na impact si life am especially moj moo fii nii Banjul in Banjul mm-hmm. boor bu nekk nag boo ko xoolee yeneen yeneen yu bëri ko dee dégg soo ko déggee si si si bi nga ko dee gis sax seen yenn activités yi gars de ak yeneen yeneen i sax ndaw yi fii sax duñ ko dee yëg parce que loolu coordinate programme su dee war a happen xaw yeneen workshop si yeneen dañu war di coordinate mm-hmm. lu mu bon bon Banjul fii national youth naka tudd council bi mm-hmm. am nañ waaw na information yi su fekkee ne fa war a ñëw si ndaw ñi ñu ñu yëg ko waaw ah, ndaw ñi dañ ko war a yëg si waxtu su ko defee ñoom tamit yu dee mbir boobu ñoom tamit si am waala boo xam ñoom tamit war nañ ko see ñoom tamit ñu mën a jóg ñoom tamit si waxtu ñu mën a dem ñoom tamit si bu ñu fa war a taxawee waaye yëpp moom dégg rek lañ si am moom bro wax dégg rek amee maanaam daal li sa biir dafa mel ni yëpp amul benn impact bu def biir Banjul amul ñu ñu gisaguñ de dëgg dëgg ñu waaw sama wàllu boppam man gisaguma ko man every time ma gis moto yu ma romba yëpp gis seen activités programme of action yi gars yi but ñun amaluñu ñun benn impact ñun waa youth of Banjul ñun mun nañoo taxaw ñun ñu wax because man nit gisuma kenn ku gën a ñëw wax ma impact na life te every time ñu ngi dégg yëpp activités yi di go woon yëpp fii si dëkk bi wala su fekkee ñun waa Banjul bokkuñ si ñun ñu fo naa ne uh, when they youth uh, warut am loo xam ne xëy na discrimination daf see war a mën a am xaajaloo déedéet bu ñu rek across the board la war a nekk Banjul be koy na ñoom lañ war a xalaat lépp lu ñu am loo xam ne luy yóbbu ndaw yi kanam la luy suxali seen seen seen dund rek wala kanam rek dañ ko war a xalaat pour ndaw bi nga xam ne mi ngi Banjul be up to the last village in the Gambia waaw parce que loolu ñun ñooy ñun ñooy doole réew rek awal bu ñu war a awal ëllëg incha a I've got new future leaders yi tey nag la ñu préparer nag lépp les la a jël pour def ko si ñun rek dañ si war a taxaw ñu gis ne mbir nekk na pour Gambie bi nga séntu dañ ko am ya rabbi waaw jërëjëf jërëjëf Mams ñu ñu ti ñu ngi ah, programme bi ñu bi mu ngi muy yoon biir Banjul lañ ko ñu ngi Baye Dof ma amoon suma Baye Fall muy Mams den om um, ak cheikh uh, tidiane so ñom ñep mang leena gërem way bala bala ñoo dem bro bala bala ñoo bala ñoo tagato because bëggon na trop fi nga wax ñu lan nga xamne lan nga bëgga puy manam dal government bi lan nga fogné lan lañ wara mëna def puy de puy mëna yoot ci mëna am kay wala manam dal ñu wañi unemployment rate bi yang mo understand si biir Gambia not in Banjul but in Gambia in general because man dama dee wax ne yoot ci tayaluñu Turkmenistan yuut si tayaluñ amuñ fiñ ko fi ñoo dem wone ji seen xam-xam wala seen doole Turkmenistan wala ku leen a jàppale man dama ko gisut soo lan nga am puy maanaam puy yobante ñi nga xam ne ñoo ñoo seetaan wala autorité yi nga xam ne ñu ñoo seetaan lan nga am puy wax leen daal maanaam waaw waaw ñun ñun ñooñu ñoom dañ leen taan am si ñoom yaakaar jiital leen te incha allah toujours ñun buñ demee ba jiital leen si boppam waaw ah, am nañ dañu am ci ñoom yaakaar kon ñoom tam lépp loo xam ne ñoom tamit muy war a naa nekk seen xalaat rek mooy loo ne moo ñoo war a ñëw ñun pour mun ñoo suxali mhm. da si lan job opportunities foofu rek laa ñëwaat they job opportunities for the youth waaw job opportunities nag pour créer ko dafa yaatu faana bu nekk industrie tey moom si true data ah, la gars yi développé tey seen bopp tey Gambia ñun tamit we should start working towards that area is very very very very very ñu fi indee industrie ak mu bëri su boobaa ndaw yi dañoo mën a jóg nit a jóg ñu dem am xëyukaay géej baa ngi nii géej bi ñoo ko moom yàlla lim ñu bless dafa bëri naaj baa ngi nii géej baa ngi nii Gambia mi ngi nekk dëkk boo xam ne Banjul ba koy na foo ji dafa sax suuf saa ngee naat soo loolu loolu loolu si boobaam loolu si boobaam rek ah, ñun suñ ko suñ ko xoolee rek dafa mel ni comme ñun lu ñu war a développe ñun tey mu ngi ak ñun ñu ngi jaakaaroo ak moom waaye ñun ñoo war a jóg liggéey si fànn boobu noonu pour ñu mëna pour ñu mëna gis ndëriñ bobu non si bopam foreign vessels ñoo jox licence ak même bi traité ñoom tamit ñu indi fi ñom tamit ay vessels yoo la fi seen trois la ñoo nekk xam na gambe ñoo ko moom ñu mëna jël suñu doomi rew yi ndaw yi ñom tamit ñu dem ñom tamit mëna séli pour mëna am lo xam ne ñom tamit ëllëg daf leen di gënal mëna jappalé seen bopp jàppale ñeneen ñeneen ñeneen industrie factory ñu traité ñu ñata mbé ñata mbé mbéyteef dañ fi dé bété ci dëkk bi bari na so mbir yoyu non tay yu ci opa tay so demee day supermarket yi dang ko dee jëni tay fekk ton ton lañ ko into another product ba paré fekk mbir mo wono sa backyard bi sa lañ ko dé bé so ñun tam dañu war di xalaat ci mbir yooyu ñu tam bala ñoo dem di import yooyu noonu muy ñëwaat naka la ñoo ñu tam mën a indi factory yooyu noonu industry yooyu ñoo tamit ñu mën a toon those things into those things ñun tamit pour ñu mën koo jëriñoo ba koo mën a export ñu tam muy génn tam ci yeneen réew tey waaw jërëjëf waxtaan bi moom neex na lool lool lool lool maam ma toonaat ci suma Baye Fall bi rek Omar lan nga foog na tey moom la nguur gi war a defal yuut ci Gambia yi lan nga foog yow si sa xalaat lan nga foog si gàttal barina lu mel naka su waxal jumtukaay xam nga jumtukaay yan Yam ngi jumtukaay maanaam daal yan façon ngi jumtukaay yooyu laa bëgg a xam pa fana rek mais yan façon ngi fana yan façon ngi hmm comme place yi ku nekk si li nga do ñu jàppale la la si waaw fii do bañul comme like fii do fan ngaa dégg ne fii nguur gi ñu ko ubbi pour yur si di fa liggéey di fa ñëwee ji wala di fa defee welda wala di fa lifine li ñu laa fay hmm? so te loolu I am you know am because they don't have this starting you know xam so waaw dañoo muñ rek sant yàlla xam nga saa ñu ko yàlla jee ñoo xam am nañ ko waaw waaye daal gars yi dañ si war they they don't focus you know our side man you know yeah and they should have focus us man they should have focus our side man you know what I mean yeah parce que ñun ñooy yore ëllëg réew mi nga. su gars yi su fi gars yi jógee su ko yàlla aat you know su ko yàlla dogalee. Eh? waaw so gars yi dañuy war a fonk xam nga. waaw jubale ñu si yoon bu jub tamit xam nga. waaw waaye comme toog bi nii di seetaan yi rek ba am ay 40 years nga bàyyi. fekk yaa ngi fii comme fi gis ñu ne rek. dégg nga xam-xam la fekk mu ngi nga loolu la fi bëri. dégg nga lan nga lan mooy sa last boo xam ne moom nga bëgg a yóbbante pour maanaam daal si lan lañ leen war a jàppale yéen yóot si. waaw waaw waaw moom laa ok waaw bëri na soo xam nga war nañoo ibil compagnie si xam nga ibil ñu lu bëree bëri bëri bëri xam nga ibil ñu place yu joobee sampal ñu place yu bëree nga xam ne dinañ si mun di xëy di joobi di liggéey daal xam nga bi la ñu seen place xam ne du mboon mën a wusu dinañ jógee ñun waa Banjul tan baa ngi ne yaatu waaw yaxtu na lool lu ñu fa mën a samp bëri na torop waaw bëri na ak plage yu bëree bëri daal waaw ñu train ñu jàppale ñu daal ñu mun amaa amaat dooraa ñu dem di liggéey ba nga bañ di toog si mbeere yi comme ni ñoo toogee ni te ñu koy toogee neexuñu waaw neex nañu ñu traité ñu jàppale ñu mën a jóg di xëy di dem liggéey ni suñu morom ñu tamit ñu fa ñu ko fi ñu fay am knowledge ñu fay toog ñëpp am a jàng dem school waaw ñëpp a gradué ñu fi gradué is much ñu fa ngi toogal seen ay certificat seen ay ressources yoo xam ne office bi ko teg waaye yow ñu fa am solution office du bëri waaye dañu jël ay mboq mboq yi di leen ay place yu yi mboq mboq yi di ne waaw ma fi ma fi nga xam ko fi ko jongu ñu jël ko isi ko teg am jàngal loolu am kii di nga jël ko reject la laa ni nga delloo ñu jël ay mboka mboka xam nga ni you know thank you very much thank you very much bro xam nga yeneen ñëw si xool tamit yow seen mbasi gis loolu noonu danga danga ba jox si yow danga leen xool mu dee waral ñu a gis yooyu noonu neexu si xool xam nga doo mën a jàng tamit ñaata guddi sa ba am sa réseau teg sa kayit yëpp da wax ne ñëw a a apply job laa wax ne ñu gis sa kayit a ngi bañ ñu jël ay jël bu loppul nekk fa jël sa mbokka yow laa wax ni jël seen mbokka sori xam nga dañu war a tare ñu jàppale ñu tare ñu nekk benn jël seen xale def ko benn ñu dimbalante ñu ne neen dëkk dëkk yi mën ba sa àgga fu ñu bëgg a dem waaw tabale moom dañ ko war a bàyyi tabale suñ jubalee rek ah, ah yàlla ñu defal luñ buga ah. mais gis nga ñàkk a jub ah. too much wrong people in the right post xam nga moo dee indi xam nga moo dee tax sa yàlla mer di ñu tegi yéen yi xam nga fekk xam nga ñun sax yeeloowuñ ko mais ñoom seen jëf moo dee tax xam nga ñeneen ñi soona so dañ war di jubal daal jàppalante xam nga na ñu yàlla dimbalee ñun ñëpp seen liggéey rafet na lool this is not the first time you know Yeah, they came around here, here once a day, you know. They meet me here. Why, why, why, why, Omar, bi, bi, bi, bi with Esbla. Ñu ko oyé waxtani mbéda bi. So dama bëgg yeen ñepp puy ñeen ñepp boy japasi. because of then go jaglel pui fuuy. I understand then go because man dama warona job ini sa Why come like dama la respect. Gis na fi nga taxawé. Yaaga na ñoo xamanté du tay. Waaw, gis na ni nga jam ni, ni nga mel ci réew mi. Fanaan na sa neeg ay So moy loolu la Omar. am toog pour wax xam nga tamit. ñoo ko ba yokk réew mi kanam. yàlla na si yàlla jàpp xam nga. dëgg waaw jërë ngeen jëf mbokk yi ñi nga xam ne ñu ngi ñu doon seetaan fii ñu ngi ñu doon bàyyi xel si àdduna ndër képp. fii la woon seen ah, TV eh, one of the best TV mun naa ne in Gambia fu nekk right now muy Sahel Entertainment Network TV watch out for you guys I mean definitely ñu ngi kontaan trop because of affaire si fii la. Program bu ees la ñu ko oyé waxtani mbedd na boy pare na si mbéda bi waa na vu yé paré pare because of plateforme bo xamné la pu youth si la nekkut pu youth si da bot pu youth si Gambia in general bo leen ko xamné yang ci Johnson yang ci vu bi rek pareel dal ba pare boy maa ngi ñaan nan ngeen subscribe FRC ñu mën ko xam nga rek di ko seetaane na sam because dañ ko xam nga rek comme ni mako ko rek dañ ko soxla torop xam nga ngeen shop créateur ñu followers yi tamit xam nga so ñu mun ko ñu mun ko défar dal ya ma understand wa jëlé ngeen jëf content na torop tay ñi ma fi amone moy tay suma broda bi muy mams mams content na torop buy am jëf way man tam kontaan naa trop waaw ah, ni ngeen ñëw tam fekkas ñu fi tamit ñu ñaan yalla tamit li ngeen yene yalla jox leen lu ko bi ci kanam barke lepp lo leen def def jaama ci réew mi def ko fépp fu ne ci àddina bi daaxaal ñu corona bi ak fitna yi iya. ak lu mëna arulan doon ci barke arulan barke wéri koor ya bi di kebe be waaw ñeneen ñi dañ ma dé oyé Baye Fall ñeneen ñi dañ ma dé oyé Mems wala wala Mams wala ñeneen ñi sañ dañ ma dé oyé tam Mandou Bojang waaye Mamadi kebe la won kansulo GDC waaw respect nice bëgguma woon a wax boobu non waaye dama la ko baye rek waaw dëgg la waaw because so gisé lool lool yeb liko waral moy suma moromi ndaw yi ñoo ñor ak suma askan ak suma rew ngir jafé jafé bi gaay yaaga yàgg wonté loolu dox tay bama dem am tour bi tay ñu nan tay Mamadi tay kansulo ngir askan waama yaaga ñor loolu waral ñom seen boppam ñoma yobu won pour ma dem pour représente leen ña yàlla dafa dogal loolu ah, amuñ ci ndam rek waaye ba léegi ñu ngi ci xeex bi parce que xeex bi du jeex xeex bi xeexi Gambie la du xeexi man maa yow waaw problème bi nekkul maa yow problème problème yi Gambie suñ ko dee gisee foofu rek dañ li ñoo li ñoo li ko mun a am incha allah waaye suñ bëggee xoolante ñu ni neen rek put, we must put aside our differences in order to find a way forward to develop our ngeen jëf ñu doon dox daje ba beneen yoon. si waxtaani mbeera bi si si beneen faana na ngeen ñu déggee xel te bag ñoo déggee xol jaa ngeen jëf asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf.